association culturelle islamique maanaam a jamiyatu saqafatul islami islamiyya fi Sénégal. waaw jataayu tey jii li ko waral. waaw dañoo nekk ak docteur di ànd ak moom di ko jàppale. mu am ay jeunes yu dynamique ay nit yoo xam ne dañoo nekk sur le terrain guddi ak bëccëg ñu ngi dox ci problème mu askan yi problème bu ñu gis ñu wax ko docteur ah ñi cay def la ñu man docteur dem am xalaat ba yàgg xam ni euh, mënul liggéey sans état parce que li mu bëgg lépp poosam matewu ko. ah mu ni naa dugg ci politique bi pour jéem a jàppale waa Thiès kooku Thiès yëpp xam nañ loolu xam nañ yéeneem xam nañ bëgg-bëggam parce que boo gisee film yi ñu fi dawal ak yeneen yeeg yeneen yëpp ñi xam ni am na yéene ci Thiès mais bi mu ànd ak président de la république di ko jàppale boobu ba léegi dafa nekk dafa xaw a yàgg parce que dafay dem juróomi at juróom benn at ba ñuy dugg parce que juróom-ñaari at te président de la république aussi gestu wu ko waxut ak moom dara même parti bi sax xaw ma dañ koy structuré xaw ma structuré ñu ko yooyu amul ma soxal mais parti bi bu ñuy def lii ñoom dañu woo docteur su ñuy def dara duñu ko duñu ko duñu ko duñu duñu duñu duñu duñu ko yëgal te ñun Thiès gii gisuma ku ñu fi épidémiologue au niveau national sax laay wax parce que boo demee affaire yi mu samp accès yi mi ngi koy def Touba Mbacké mi ngi koy def euh, fu mel ni euh, euh, ngaay Mexe particulièrement Thiès dañ fi am ëpp na 500 affaire yaa ngi dégg piw accès yi donc léegi te booba ba léegi dañuy gis ay quelques uns yoo xam ni daanaka li Alxuraan di wax mu sab sa bii na bay na salika la ala haulaay wala ala haulaay nekkuñu fii nekkuñu fee ñaari xel lañ yore bu ñu demee au niveau de la présidence di def intoxication di def yi kenn xam par respect moo tax tudduma seen tur te mënuñu dara ci dëkk bi nag bu parti bi di affaire daanoon tey jii ñu dem lekk seenu xaalis mais docteur bu affaire daanoon tey jii mu dem fee ci clinique ba parce que yàlla yàlla yàgg na ko jox teranga mais dañ ko war a gëstu parce que mbooloo mi topp ci ñun ñii ngay gis ñëpp la mosal parti Thierno Alassane Sall la ñu àndal. mais ñu gëstu ko. waaw poste PCA bi par rapport ak li xam ni moom la méngool dañ ko ko joxul. parce que voilà li mooy ñu jox ko ay marché wala ñu jox yenn fonction yi ah ñu jox ko mboolu bu ñu ko joxul ñu jox ko poste directeur mais à chaque fois Thiès da ngay gis ñuy parasité yi nit di dugal ñoo xam kenn xamul fu ñu dëkk kenn xamul fu ñu bàyyi ko ñu parasité leen jox leen ay poste ndombee tànk mais loolu boo koy xool sax da naan mii Macky Sall bëggul waa Thiès considéré wu parce que boo xoolee kudd géegi kudd tey boo ko xoolee fi ñu toll actuellement kañ fa indi fa la dëkk Jurbel kan moo ko waaw kan moo kan moo ko a jeex il faut arrêter la ñu nekk nit ñi du ñuy ay xar moo jóg euh, jël euh, dàllam nekk avocat effectivement parce que ñun ñooy dem ci population bi ñun ñii ñëpp njabootu docteur la ñu saa yu ñu xëyee dañuy xool li nga xam ne askan wi moom lañ soxla ñi di ci nekk parce que yërmande dong la docteur feese donc loolu moo tax ñun ah amul benn poste boo xam ne nii waa këram docteur yi ci quota yi sédd nañu ci kenn loolu moo tax docteur jël poste salaire PCA bi séddale ko askan bi séddale ko ñi nga xam ne ñoo ko dar ba wëlbati ko dafa laalaat ci poosam pour mën a loolu mën a dem loolu mën a dem parce que matewu ko kon donc ku mel noonu mais bu fekkee dañoo bëgg askanu Thiès suqaliku wala dëkk mu taxawal président war na koy gestu war na koy recevoir mais dafa mel ni Macky Sall dañ ko dëddileeg docteur loolu la ñuy il faut arrêter ça duñu ko nungu waaw duñu ko nungu moom. ndax fi ngeen toll nii kenn mëneesul xalaat ne chantage ngeen bëgg def président. non non chantage bu ñu doon chantage chantage nañu bi yàgg xam nga ku toog juróom-ñaari bokkut ak juróom-ñaari at juróom-benn at bay dugg juróom-ñaari at mais concentration présidence mais ñi topp ci suñu ginaaw ñoo ñu jaaxal population bi topp ci suñu ginnaaw moo jaaxal docteur poosam attanu ko li ma amoon séddale na ko chaque fin du mois musta percevoir xaalisam ñi may toogal xam nañu li may wax waa Thiès yëpp xam nañu li wax mais kenn xamul qu'est-ce qui se passe Macky du ko woo tey ji ay kilifa dañuy ñëw bëgg dugg ci parti bi bëgg ko ay kenn xamul kenn xamul lu ñu wax foofu kenn xamul qu'est-ce qu'il y a nu mu demee. audience yi président di dalal waa Thiès non man audience yi gisuma ci benn boo xam ni nii docteur am na ci yoo xam ne docteur dina dem mais le plus important du toog ak moom ci audience ànd ak gaayam yooyu du may bañ a tudd seen tur yooyu man du ma ci du ci impliqué wu. li am solo mooy mu jox docteur Ndiaye gëddaam jàppale ko mu renforcer lii ngi topp ci ginnaawam boo xoolee ñii ñi ñu fi indi tey. mais ñooñu ay militants lañu yoo xam ne nii ci élection euh, euh, législative yi mais ci feneen keneen la ñuy àndaloon Thierno la dañoo ñëw ni ma ñun dañuy ànd ak moom mu gàcce a ko di ko jox salaire bi ko Macky Sall jox mi ngi ko séddale nit ñi mais loolu defarul Thiès et puis Macky président Macky Sall mooy daaneel boppam à chaque fois parce que li si yi docteur moo jëkk a ñëw daal di ni euh, Mamadou Dieng la fay la ko présenté bi nga ko présenté Mamadou Dieng ne ko kooku li ma liggéey sur noor malgré que dëkk ma foofu bu ñu ko boolee ak li nga xam ne Mamadou Dieng moom moom la liggéey dañuy dañuy gagné ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm mais bi ñu demee ba ca biir am yeneen nit yoo xam ne du ma tudd seen tur par respect par respect lii may def ni docteur yëgu ko yaa ngi dégg baax li ma wax am yeneen nit ñu jox ci biir ñëw gis Mamadou Dieng jox ko xaalis mais trois fois la ko fi zone bële aussi la même chose ñu defaat fa ay liste parallèle zone benn Benno Bokk Yaakaar am ko fa yaa ngi dégg Thierno Sall beneen liste parallèle boobu mu defoon muy léget gi lam fa am bu ñu ko booleel moo ëppale Idrissa Seck am kon Idrissa Seck docteur yóbbu na ko quatre appuis ko di créer seen liste parallèle moo indi problème yi moo indi problème yi Thiès Idrissa Seck rebondiraat jóg et li gën a li ma gën a naqari ñoom dañuy tontu Idrissa Seck wax nii Idrissa Seck nii Idrissa nañu dem liggéey laaj dagaan baatu askan bi Idrissa Seck réew mi la soxla comme Macky Sall que ça soit nañu dugg ci biir ni ñi buñ leen soxlaa gis leen mais dañuy tëj seen portable kenn mu leen tëg bët mhm. mais aussi loolu tam du liggéey luy jot jot na luy jot jot na ginnaaw dee dee li ñu am fii Thiès kenn amu ko fi léegi ah en ñi ngi toog di ko déglu ñi ngi toog di ko déglu suñu su suñu wooyee fu laal ñu fay daal ñu jàppale ñi ñi askan bi ñu ànd ak moom liggéey su ko deful ñu arrêté ndax da ngeen banque seen loxo banque suñu loxo la ñuy def arrêté parce que lii du diine l'islam wax naa ko fii léegi ci biir salle bi diine la nit ki ñaan yàlla dee ci la police ça c'est l'art de l'organiser une société particulière une société donc yonent bi moo jëkk def politique bi mu ñëwee dafa mën a. borom xam-xam wax ne bëgg sa réew ci jàmm yàlla. waaw bëgg sa bëgg sa réew lan bëgg sa bëgg sa bëgg sa bëgg na réewam. mais jàppale bi dafa dafa gën a mën dafa war a gën a yaatu. par rapport ak jàppale bi ni ko nit ñi bëggee. Ah, jàpp non non askan wi. Thiès état moo yore état mooy def politique boo xam ne ni moom mooy politique de développement état moo koy def. état ay levier la kon donc boo amee say nit say représentant da leen di dooleel parce que Macky Sall mu yor xaalis askan bi dañ ko ko mu war a delluwaat ci askan yi ña toogal askan ma nag ca gox goxaa ñe ne leen ko delloo mais pourquoi pas arrêté sëñ bi fan ngeen jëm ah, hmm. wax ji yéegagul la kooku dina Macky Sall dina ci xam dara Fallou Gueye dina xam ne xorom karim kenn yabaluma docteur kenn yebalu ma ñii ma toogal xam ne kenn yebalu ma ni ma def dañoo toog dem ba xam ne nit ñi nit ñi toppee mën a attana tuñ ko il faut président de la république réagir loolu moo tax ñu def li mais ñaata at mos ngeen a dégg docteur wala benn nitu docteur Kass kenn mosu koo dégg te dara waralu ko ay quelques-uns yoo xam ni ñu ngi fii ci biir dëkk bi du ma tudd seen tur. financement yi nguur gi joxe docteur. financement yi jigéen mosu ñoo jox ñaari dërëm financement yi Macky Sall mënu ñoo jox mosu jox financement. musuñu jee am poste musuñu jël benn nitu docteur Ndiaye amul quota yi ñu joxe nii kenn benn nitu docteur kenn jëlu kenn musul amu am mais nag dafa war a arrêté lii dañ koy dakkal incha allahu rabbi luñ ci góobee gar ko maa la wax loolu. lu ngeen koy dakkal. ah de yeggaguñu jë déggoo mën na wax jooju trois points suspension la dañuy déglu président de la république ndax dinañu woo dina woo docteur fulaal ko fay daal ko wala bu ko wóowul dafa am benn sëriñ dafa wax ni yàlla bu xeebee li ko Sénégal di jaamu perte dikkal na ko. Macky Sall su xeebee li ko docteur di liggéey perpétuel na ko ci élection su ko tuddee chantage non du chantage ñun chantage ñun dañuy dox ci yooyu dañuy dox ci yooyu ku liggéey da ngaa war a fayeeku man amila saalihan fali nafsihi wa ma alayha wa ma wa man asaa fa alayha c'est-à-dire nit dafa war a fayeeku docteur dafa liggéey askan nitam ñi docteur du moom yàlla suturaal na ko mais ñu topp ci ginnaawam sonn bay bëgg dee ñooñu ñoo tax ñuy wax docteur daal directeur général wala ministre. Fallou na wax non ministre ñun sax ministre man waxuma ministre amul lu mu attanul fii ah, ñi ñu ci jox ministre ëpp ñu ko mu jàng c'est un docteur c'est un docteur amuñu ñu ko ëpp mu jàng coolee fi nekk rek kenn app ko fi mu jàng dafa sofeel suufeel boppam rek xam nga sëñ bi dafa am benn mbir suufeel gi docteur suufeel boppam di yor welo tax na sax ñiy dem di def ay intoxication ci docteur mais nit yàlla yi fi nekkoon dafa am genn góor yàlla gu baax gu ñuy wax imaamu Junayd di Saalih dafa demoon ba yegg ci yàlla boobu àddoo yàlla àdd benn bis mu ñëw ci marché bi xale yi di ko géyti géytee te su waxee yàlla àdd benn promotionnaire am gis ko ni ko samitu ani nas yaquluna sa june di sali wasala ila nihaya ñu ni eh promotionnaire bi xaw ko soxore moo dal docteur mii ñu bëri dañ ko soxore ñu ne ah damaa dégg ñu naan junni sa da ngaa yegg ca yàlla samitu an nas yaquluna hasa junni sa wasala ila nihaaya lan mooy yegg ca yàlla maa maax naa nihaaya mu ni ko al awdatu ilal bidaaya da suufeel sa nekk ndoog dara lool mooy yegg ca yàlla docteur nag ñii mu mel nii di yor weloom bi noonu lay continuer incha allah di saafanteeg askan wi guddi ak bëccëg ku ko soxla fekk ci clinique bi gis ko boo ko fekk sa soxla lu mu di ànd ak le PCA du FONGIP docteur Papa Amadou Ndiaye en français Voilà, nous est-ce que vous revenez un peu sur cette Fallou wow, Aujourd'hui, notre confrère euh, Fallou avait organisé euh, cette activité au niveau de la Chambre de commerce pour déplorer, euh, pour déplorer l'attitude euh, à l'égard de notre responsable, le docteur Papa Ndiaye. Comme vous le savez très bien, depuis presque 15-20 ans, Dr Papa Amoudou est au chevet de la population de Thiès, de par ses activités sociales, de par ses activités auprès des populations démunies. Euh, comme nous l'avions cité tantôt, les circoncisions, les consultations gratuites. Euh, même, euh, je peux vous donner comme exemple euh, évén les événements qui doivent euh, venir euh, le 15 mai, le 5 mai. C'est moi qui gère les audiences de Dr Pape Amour Mais vous savez, on a reçu presque plus de 30 soutiens pour le 15 mai. Il y le Gamou de Loyen, le Gamou de Samdiaï, euh, le club scientifique de Medina euh, Fall. Et, tout, ces activités la Dr Amadou Ndiaye débloque de par ses propres fonds, de par, ses propres moyens pour apaiser ces, demandes, pour apaiser euh, la tension qui monte. Parce que comme vous le savez très bien, aujourd'hui, Thiès déplore l'attitude de son Excellence M. Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, nous devions avoir au minimum un ministre Mais vous savez, chaque fois on dit Thiès réclame son ministre. Docteur Pape Amadou Ndiaye débloque ses fonds il n'en peut de la bonne gouvernance, elle est de Thiès. Elle s'appelle Ramatoulaye. Non, Ram, le on, de la zone nord, mais je connais pas Ramatoulaye. C'est Ramatoulaye là, c'est un pas un ministre de Thiès. Parce que comme vous le savez très bien, il n'a jamais fait d'activité à Thiès. Il n'a jamais fait de meeting ni de, de, de, même à Thiès. On le connaît pas. Nous, les responsables qu'on connaisse, c'est déjà le docteur Pape Amadou qui s'investit à Thiès, qui se donne à, qui se donne, qui donne tous ses moyens, qui, de, ses, de, son propre argent. Vous savez très bien, tout ce qu'il travaille au niveau de la, de, de, de, la clinique, il le reverse. À chaque fois, euh, euh, euh y a, euh, au niveau de la secrétariat, quand il travaille 400 000, tous les 400 000, il les verse au, au profit des populations, au profit des, des, des, des soutiens, des demandes religieuses, etc. Nous demandons, ce n'est pas une pression comme vous l'avez demandé, on ne, on ne, fait pas de pression par rapport. Parce que si c'était seulement docteur Amouniaï, il pouvait laisser tous ses activités parce qu'il travaille. Le docteur Amouniaï est nommé président du conseil d'administration du Fonds Juc Diop depuis mais, deux ans, trois on n'a jamais, le président de la République, n'a jamais pris docteur Papa Amadou Ndiaye à huis clos pour discuter avec lui de la situation de Thiès. C'est ça qu'on parce que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas, vous responsable au niveau de Thiès. Sept ans, vous, vous, vous n'avez jamais parlé avec lui. Mais vous attendez à la veille des élections pour le téléphoner. Docteur Papa Amadou Ndiaye, je compte Après les élections, c'est fini. on n'entend plus parler de. Il doit le prendre au niveau, euh, s'acquérir de, la situation de Dr Pape Amadou Ndiaye. C'est ça a besoin. Le, le, le, le président Macky Sall doit appeler Dr Pape Amadou Ndiaye pour parler avec lui, discuter lui de la situation de Thiès. Et lui confier des responsabilités. Et lui confier des, des responsabilités, des responsabilités, bien sûr, que vous savez très bien que ce, ce que Dr Pape Amadou Ndiaye fait, l'a dit Fallou en Wolof, Il n'en peut plus, il ne peut plus dégager de, de, par ses propres moyens. C'est pas une fuite de responsabilité en avant Fuite de responsabilité comment oui, de sa part, d'autant après 20 ans quand même de social, aujourd'hui il est un peu euh, essoufflé. Essoufflé, oui. Ah, bien sûr. Non, c'est pas une fuite de responsabilité parce qu'il n'en peut plus. Les sollicitations augmentent. Parce que vous savez, c'est lui qui est le responsable qui habite à Thiès. Il est, de, il est à Thiès, toujours à Thiès. Les autres responsables, ils sont parfois à Dakar ou, autre. Euh, ils viennent que le week-end. Mais Dr Pape Amadou il est assidûment à Thiès. Tous les Thiessois connaissent euh, le, le, le, clinique. Ils y vont. Quand ils vont, ils ont des... des, des, des, des cas sociaux, à chaque... N'importe quoi. C'est moi qui les audiences. Des fois, j'ai 30 audiences, 30 enveloppes. les écoles les fosco les euh, les gamou les chant mais tout mais docteur Pape Amadou Ndiaye de parce des fois il euh, le secret euh, au niveau de la secrétariat il dégage tout Quand docteur bien, euh, il lui dit euh, Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui J'ai travaillé 500 000, j'ai donné 500 000. monsieur Diop, ce que vous brandissez ces menaces, vous euh, qui êtes des menaces, euh, ben, Nous interpellons le président. de la République. Parce qu'actuellement, on va vers des élections cruciales. On va vers des élections présidentielles. C'est le président de la République qui demande. Ce n'est pas docteur Pape Amounidia qui demande. Pour renforcer pour, pour, pour avoir un second mandat, comme il l'a bien voulu et qu'il le mérite bien, mais il doit considérer Dr Pape Amadou Diaye. Le considérer, c'est pas comme bien, comme l'a dit Fallou, c'est bien. Lui donner peut-être des postes euh, ministères, des postes de direction pour qu'il puisse appuyer les Thiessois, mais aussi qu'il l'appelle. qu'il appelle le PCA Fongib, qu'il discute avec lui de la situation de Thiès. Parce que quand on discute pas avec quelqu'un, on, euh, de liste majoritaire en 2014, euh, vous pensez que quand même c'est un manque de considération mais de il, la part du président euh, majoritaire là quand il l'a mis tête de liste majoritaire au niveau des élections locales, c'est le docteur Pape Amounidia qui, de par ses propres moyens, gagné. Il a des, euh, mais cette tête de liste majoritaire-là, mais c'était dur pour lui. On l'a mis tête de liste majoritaire, mais il a déployé de par ses propres moyens près d'une dizaine de millions pour s'investir, puisque lui, c'est comme ça. Quand, il, quand, quand, on lui met quelque chose, il se, il se, donne à fond. Il attend rien du président. Mais actuellement, il comme, comme Fallou l'a dit, nous qui sommes avec lui,